foofu la ñu nekkoon yaakaar naa ni ñu ngi woon foofu nga xam ni moom mooy euh, ci événement yi nga xam ni moom mosoon am ci euh, Grand Bal ñu koy waxtaanee Grand Bal am na si sees ay yoon yu bare bare bari Grand Bal am na daaw cee dakaar Arena waaye Grand Bal ren ña nga xool fi nga xam ni mooy musée des civilisations noires tey ren li tax Youssou euh, du bal de VIP bi daan am 24 wala vingt 25. li tax ren ñu pousse yëpp ñu def ko 1er janvier mm-hmm. yaakaar naa ni 1er bi nekkul n'importe quel 1er waaw ah, macha allah dina nekk premier janvier boo xam maa lay delloo yaa ngi am jàmm ndax di la jàmmal maa ngi la gis yaa ngi def benn vidéo anniversaire vidéo anniversaire rek xam nga bu ñu bettee euh, rek faaw ñu bett benn Abakara moo doon anniversaire ñu koy Abakara doomu yaayu Abakara la jàkkaar ñu koy siyaar bu ni ko waxee rek tey moom dafa nekk euh, bis bu parce que sama rêve laa réalisé nii euh, dund bay nekk ci télé en 31 décembre télé rek laa daan seetaan musuma fekkee émission doog am un an yow. maa ngi doog am un an 31 décembre bii moo lay moo may jox yaa mais yow mais yow amagoo fi sax un an. février bi ma commencé man dama commencé rek dem chômage. xam nga waaw xam nga rek jël conseil. ay 6 mois yooyu noonu doo commencé. <laughs> voilà man man décembre bii ci def un an maa ngi ziar ñëpp di nuyu képp ku ñu seetaan waa jàmm gën Kër Massar comme ni ñu koy waxee a chaque fois di leen wax ngeen teew bu baax ci seen émission bi ñuy wax Weekend Star tey nag spécial euh, la fi fekk guma fi. 1er janvier euh, mosoo goo ko dund ak waa groupe Futur Media. ak Youssou ci kaw scène bi. 1 janvier daaw ñëw naa seetaan si mais en tant que citoyen lambda ordinaire en tant que nit ordinaire en mais en tant que en tant que nit rek ñëw seetaan mais bii en tan que animateur c'est la première fois ñu koy dund nii. yàlla baar na nuyu réalisateur bi Mao. maa bés boobu moom moo fay nekk comme ça yow bu Youssou war a wax rek am moment ay moment mu dugal la nga wane sa yëf comme ça liñ naan preuve l'histoire retiendra mu nekk 2023 boo xamante ne da nga koy tàmbali ci ni mu génnee en tout réaliser Bercy bi de moom o père Diom yëpp moom laa ko jox <laughs> naan ma fàgg ci télé bi samay mbokk di ma wax naan ma ngi yaa ngi xam naa ne est-ce que ngi fa woon Haj Malick tonton Mac Pape Samba ak Pape Samba Thiam ndeysaan vraiment ñoom ñëpp ñu leen di féliciter et di leen di encourager parce que c'est une jeune équipe dynamique yoo xamante ne nañu bunge ci li nga xamante ne moom animation comme ni ñu leen di woowee ce sont les hommes de l'ombre c'est vrai que ñun tout le temps ñun ñooy nekk en face de vous visible di wax rek mais léeg laqati c'est parce que animateur kii présente wala sax kii réalisé mhm. moo lay yokk li nga xamante ne moom moo di euh, euh, cawarte wala mhm. pas-pas ba nga xamante ne da nga koy partagé ak yi ay ci tos euh, bi nga yeggee France damaa dégg ñu ne bi ngay ñibbisi mhm. sa per jom bi ngay wax ni réalisateur bi nga ko jox dégg naa moom nga fay ki nekk ci aéroport bi te doon gérer affaire de test corona parce que da nga ko amee bor bi ngay dem da nga ko amee bor ni ko bu ñëwee naa la fay bi nga ñëwee moom nga ko fayee yàlla yàlla defal ñëpp jàmm en tout cas day fàttaliku li nga xam mooy Grand Val premier janvier bu nekk am a moom la ci a RFM mm. euh, moom mm-hmm. euh, ah. euh, li nga xam ni mooy ses fi nga xam ni moom mooy ci RFM wax li nga xam ni mooy ses nga xam ne mooy RFM def nañ ko daaw def ko daaw géej ren dañ koy defaat ànd ci ak waa RFM yëpp yëpp yëpp mm. organisé par Madame Ba mooy mm. borom le palais de l'immobilier ah euh, di une grande dame di une dame de fer di jigéen ju mën góor di mm-hmm. jàmbaar dëgg dëgg dëgg organisé Youssou ñëw RFM animateur yëpp ñëw mhm. fekk ko fa mu wax ses meilleurs vœux mhm. ñu waxtaan ak moom laaj ko ay laaj mhm. euh, dem ci li nga xam ne mooy année bi ñu génn wax ñu laaj ko ay projet ci année bi nga xam ne moom la ñu jëm yaakaar ne loolu ñëpp dañ koy xaar xam nga tamit la RFM maintenant c'est une ñu seetaan di ñu seetaan effectivement te Abba loolu je pense que noonu rek la mën a jëfee que nga toog pratiquement pendant une nit nekk ci li nga xamante ne moom moo di sa bande FM di wax ak lépp loo xamante ne moom moo di ay information yoo xamante ne dafa wóor te leer Euh, baax na ci li nga xamante ne bu at mi di dëgmalaat nga ñëw waxtaan ak ñëw lancé c'est vrai un message à la population parce que Youssou Ndour quand même il reste un Sénégalais très dévoué pour les Sénégalais waaye ñi nga xamante ñoom lay liggéeyal tamit dafa leen féete fenn ba tax na bu ñëwee feddaliwaat li nga xamante moom moo di kóllëreem cofeelam ak tatagal leen surtout félicité leen ci li nga xamante moom moo di liggéey bi ñu def loolu statut statut ci lii am ci téléphone yi. statut waaw statut mhm, moom la ñuy def. waaw mhm. statut Bouba Ndour laa liir. ah lu Bouba bind. aw ma billet jaayuma billet may leen ma sama jàmm ngir yàlla. <laughs> ah Bouba Ndour mi a waxtaan ak ay nitam donc je pense que moo mën a waxtaan ak ay nitam da ngeen ci waroon def benn vidéo boo xamante ne TikTok la ñëpp partagé ko statut ko. <laughs> boobu na ñu ko ñu joxe ko ñun ñi tam ah, Bouba Ndour a mën a ak ay nitam xam ni muy waxee ak ñoom. dara sàpp ko yar ak teggin la waxee ak ñoom. nee na <laughs> ndimbal jàmm aw ma billet <laughs> dimbali leen ma ngir yàlla ngeen may ma jàmm. <laughs> Ah, ma yaakaar nag eh, dafa wax loo xam ni. daa waxal kuy liggéey groupe Futurs Médias. <laughs> daa waxal mooy suñu porte parole. daa ñii laaj ñi ba tey billet ba pare. Mhm. Mhm. Eh, dinañ lay laaj billet. Mhm. nga envoyé affiche bi nga xam ne fa la billet yëpp am. la. ñu ne ndax yow. je amoo ay billets. Eh, yëfi Youssou Ndour. man mii di wax ak yéen sama dem man. wóoragul man mii di wax ak yéen sama dem. ci ginnaaw kilifa gu tedd laa ko wéet <laughs> man de ci ote su kii laa ko teg bijou nee ko man moom naka jekk ote si dañuy jël ay 1 mètre 50 wala 1 mètre 60 waaw waaye mat 1 mètre 40 rek bu ma ko ñawalee ma taxaw doon otes ndax mu mën a dem ca biir xam nga yuusu am na fulla am fulla goo xam ni moom dafa xam ni personnel bi nga xam moom la am. Mhm. bu ñu matul 1000. <laughs> wallaahi yéen i manqué 1000 lu tuuti lañ. ñooñu ñëpp boo leen joxe billet. ah mooy da ngaa perte boo ko yëgee boo ko yëgul perte nga. perte nga na man de ñu jox ma ma jaay ticket comme ñëpp. <laughs> en tout cas moom mu nekk loo xamante ni ah bu ñu nee Youssou rek ticket yëpp day jeex man mm. damaa tiit bi ma nee. VIP yee njëkk a jeex. Mm. man looloo ma njëkk a jaaxal. nit ma woo. Mm. am ku jox xaalis bu takku ne ma jëndal ma 10 VIP. ma ñëw TFM laa dugg laajte ñu ne ma yow foo la dal ticket yi 10 000 te démb la jeex. bii amatul fi lépp jeex na lycée fermé. abaa ah loolu leer na nga baamtuwaat ko. bii amatul fi mu toll nii na ngeen ko dagg dugal ko ci TikTok bi pour mu. bii amatul fi mu toll nii. <laughs> ñun ñi liggéeyee ci télé bi sax suñu dem wuuru. ñi yor billet mooy ñi ko jëndoon. di ko jaayaat fi ñu toll nii te mën nañ cee teg lu leen neex. mais ñooñu rek la ñuy ñaan. Uh-huh. ñu dawal yërmande ci biir effectivement c'est vrai parce que nag ñoo moom seen xaalis. Mm-hmm. ñoo dem wuti seen i mm-hmm. ñoo ko teg di ko jaayaat. Mm-hmm. li revendeur pour am ci dara. dañ leen di ñaan rek ñëpp bëgg baal yi. ñëpp bëgg dem grand bal c'est le premier janvier c'est 2023 mm-hmm. Youssou daf ñoo jig suñu njiglaay la ñëpp bëgg a fekke loolu mu léemu réew mi léemu nit ñi ñu ànd ak moom ba 2023 donc yaakaar naa li kenn bëgg ko raté mm-hmm. moo tax les revendeurs fa ñu dawal yërmande quand même mm-hmm. effectivement tu as parfaitement raison bébé revendeur yi loolu di wax maanaam affaire day mel ni médicament xam nga Youssou Ndour bu xewlee affaire day mel ni médicament nit bu feebaree ñëw ne la damaa soxla garab bi loo ko taxé da la koy jox dëgg yi bu ñu di profité loolu ñu ci ci ci faiblesse nit ñi ñëw nga ba ci porte Youssou dégg Mbaye Dieye Faye naan yaa jamais 203 loolu doo ko bëgg a ñàkk man de am na lu ma ci gis tey ci suba aba benn message am kenn koo xamante ne naan ma lu leer laal a wax ba pare dogu giiñ nee ma 2023 maa ngi gis ni sa mariage ne ma waaye sarax bi ñetti ticket <laughs> VIP Youssou Ndour la <laughs> ndeysaan ay ma doon lii seeru de <laughs> ma ne ko nga xam quatre nga dem waaw mais problème bi mooy problème bi mooy damaa gisul ticket fii la sarax bi jafe nag ma ne ko sa càng sa may gu njëkk sa yëpp quatre vingt dix quatre vingt dix mille waaye problème yi fi daal xaw ma France daal di xëreem xaw ma nuñ ko xeex France daal gisuma ticket léegi nag fi ñu toll ni problème bi mooy ñëpp bëgg nañoo fekkee fu yuusu daan mbay mbay naan ko yu il n'a jamais deux cent jamais deux cent trois ñëpp bëgg nañoo fekke surtout bi mbay yéegale guitare ga ca kaw waaye si mbiib nu mu tudd ci mbiib kat bi kii mbiib rek kii mbiib rek mu ne mbiib rek njëkk bëgg nañoo fekkee Assane Thiam maa wax ah nii gàtt sama bi naa ko rondondondong ale mooy mbib ale mooy mbib ale ale mooy mbib a ngi noonu kat bi Moustapha moo yor marimba bi ay yaa ngi dégg la muy marimba la ilaha illallah waaye wootem rek kan mooy le batteur le batteur mooy ya moo yor Cool mi waaw waaw waaw ñoo koy kan la ñoo kuy c'est qui le kii Jean déedéet du Jean wut naag Jean gaaw leen yéen laa xaar bu aay bi rek ah yow tax yéen laa ah, xaar man yéen laa xaar sa amade si dimbaluñu yéen laa xaar kooku mooy Ablaye Lo Ah, Ablaye Lo ah. Dame Furé merci Ablaye Lo Dame Furé eh, et eh, moi je fais partie du groupe Super Étoile lii ngeen di gis mu nekk ci noppam bi noonu foofu nañ koy deewee Ablaye Lo Ablaye Lo di sama xarit Ablaye Lo ñooy añandoo ñooy reerandoo donc man xam naa Super Étoile baax léegi maa aussi c'est pour ñu dem ci ay rétro perspective dégg nga lii rétro perspective ah, fàttaliku rétrospective oh. rétrospective voilà fàttaliku grand bal yi amoon rétrospective <laughs> rétrospective ñu arrêté ci grand bal yi remember waaw remember voilà américain nga mais anglais na yàgg everybody. voilà we remember. exactly you remember. Mm-hmm. Eh. the next. grand bal the last. grand bal. the last grand bal. yeah. Uh, here. the first January. or let me down. arena Dakar or. man IAM bi ngay jàngee xaw ma ñoom lan lañ la war a def fi mu ne. laajuma la <laughs> yéen ñu dem seetaani grand bal bi amoon di ñëwaat léegi ci plateau. indiscipliné. Keep sama parti sax tu leen leen seen bopp tàccal leen seen waa kër maa leen war a tàccoo ak yéen a ma war a ma ne ko nga xewee woon fi nga xam ne moo ca Dakar euh, Arena yaakaar naa ni euh, fi ñu toll nii euh, ñu ngi waajal ñun ñëpp la premier janvier tatagal Youssou Ndour way ko ñi nga xam ne ñooy ay soppeem way ko ay fansam way ko ay xaritam waaye ko ñi nga xam ne la ñoo koy bëggee bu baax a baax ngeen gis innovation yi nga xam ni moo amoon daaw ca Dakar Arena gis ngeen li nga xam ni moom la ñu def ci son bi mu nekk loo xam ni tarkaal la bokkoon na wala man bokk na ci li nga xam ne moom a gënoon marqué daaw ci li amoon ca Dakar Arena son bi ci tatagal bi yokk ci ay yëf public bi jour bi laa njëkk a gis Youssou Ndour ci àdduna li ma koy bëgg-bëgg yëpp depuis xale ba bi ñu daje ci porte bi ah mu jar sa tur ba ma ne e tos. raay sa mbob. Ah, ah laa xam ne ndeysaan. Youssou la ah ndeysaan. nga xam ab rasamaan de poule. nga xam ab rasamaan ngay nekk. après après j'étais accompagné par ñamaxit. Mhm. ndeysaan mu woo ñu encouragé ñu ne ñu booy maa ngi seetaan liggéey bi. lu leen. liggéey moom liggéey rek la lay wax. moom la gis liggéey rek. bis bi nekkoon bis bu màgg boo xamante ni. Mhm. son bi bu rëkkee day mel ni sa dënn bi lay rëkk. Ah, damay fecc ba si yàgg ma ne nag garab bi tey daa mel ni daf ñoo mere bëgg ñoo duma rek bañ tëdd. <laughs> daa kontaan rek enfermement yoo xamante ni. daa kontaan son bi day xaw a wàcc nii rek beneen ba yëkkati ko. ko public bi jox la public effectivement. te concert Youssou xam lu tax mu metti mhm. son bi buy jeex bi ci topp buy ñëwaat da ngay yuux <laughs> dëgg la. li nga wax ni c'est extraordinaire lu garaaw la. son buy daanu. buy daanu da ngay ndax kontaan ci son bi nga jógee. buy enchaîné beneen son bi boobu da lay surprendre ba da ay <laughs> tàccoo ak ay yuux da ah, eh meilleur. de tous ces temps macha allah comme ni nga ko waxee ba pare tatagal bi dafa tombé wul mu génn ko avant ñu doon waajal li nga xamante ne moom moo di euh, grand bal ca arena et je pense que mhm. ce sera pareil ak bukki yi nga xamante ne plus moom la def xam naa ne bii pas tamit bu ci kaw seen di nga ah. gis gars yoo xamante ne comme mhm. ni nga ko waxee bu yuuxu yeeg ak tàccu yi di àndandoo maanaam yëf yi dafa nar a mooy comme ni ñu koy waxee rek je pense que euh, sant yàlla la et comme on dit na gars yi teel a préparé wu teel a ñëw ba ñuy yéex a déplacé wu ñëw ba pare leneen li mu ci gën a neex aba mooy teer bi nga xamante ne tëj nañ ko fa ndax démb maa ngi gis ci ay reportage hmm. ñuy wane teer bi dina quitté fi nga xamante ne moom moo di jam ñaajo